Touba Bahdat Touba Bahdat dëkk Serigne Abdul Khadir Mbake tey nag askan wa fa yewoo ñuy wéy di jooy wallu ah ma ngi nii sama loxo baa ngi nii ba fi mu ne reesagu ci loxo jàmmoñ solal nañ nu lool solal nañ nu lool lool lool lool lool man ku ma door bu ma daanul fay bëyi ak fiñ ko jàppee mu tudd waxtu naqara tiis naqara metti lool gu naqaree saafara lu ko waral oto yi daw ci dëkk bi te amuñu benn numéro kenn leen a xàmmee kenn mënu ko amal sécurité yéen mbokk yi ñuy seetaan di ñu diglu ñu ngi fii ci Touba Bagdad am fi ay gan yoo xam ne ñu ngi bàyyi ko fee dëkk bu sell bi di Touba ñuy dox tànki leerlu ci mbir mi nga xam ne suñ boroom dafa dogaloon mu daloon ci kaw suñ mbokk yi muy démb di ay càcc goo xam ne ay yàlla ñoo fa ñëw attaqué leen dal ci seen kaw siif seen alal jëf ju ñaaw daal joo xam ne am na ko fee ca pale léegi nag mm, ki nga xam ne mooy suñ kilifa di sëñ Demba Xari nga xam ne mooy kilifa kër ga mu ngi ni toog moo njaboote ñëpp moom sax mel ni ne far jur googee ñu doon siif moom moo ko moom léegi nag kon ñu jox sëñ Demba kàddu gi ngir mu leeral mm, askan wi daal na mu demee kon sëñ Demba ñu jox la kàddu gi ngir nga leeral yëf yee naka la demee ban action lañ dikkee ban heure lañ fa ñëw ak ñaata nga gis wala nan demee yëpp daal nga leeral ko mm, askan wi bisimilah. salaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf. Mor Mbeng sama doomi bàjjen sant naa la asalaamaaleykum rahmatullahi taala dina xamal ne démb bi ñu añee ba noppi toog ci kër gi as tuuti ñu seen ab taxi ca penk muy daw ñu ne taxi bi wéeti na de ñu ne ah, war ngeen a jóg de war ngeen a jóg foofu ñu naan war ngeen a jóg jóg leen doom ngal sama rakk daal di daw ñëw na taxe ba dama ngay sar sa ci xur ñu daal jël foofu aw fas ngelambu takk ko ñetti nit ne jigéen ñi yuuxu sunu bokki dëkkandoo yëpp ñëw a ah, ñi waar fas ñoom wéy nañ ñi fa bi tànk nu dem mi mii ma dem ànd ak ñoom ba fa ñi doon sarsee gàtte yàlla def nag ña doon daw yor njëkkoon a dem yor fas wi ñu topp ruut ba topp ruut ba ba ñuy weesu ndar xaaxaam ñu daje fa ku yor ab tax bu indi woon fa ay kiliyaan kër sëñ Omar Bousso kooke moo njëkk gis taxi bi dina taxi bii de xelam wii du jàmm daal koy teg bi mu ko tegee nee na tuuti ñu xam ne ñoom seen panu yàqu na mënatuñoo dem ak li ñu sëf ñu wàññi gàtte sànni leen kooka dàqeek ñoom ba ñu dugg Baxdaad mu def ñaari yoon mu aw yoonu càmmoñ wi ñu aw yoonu ndeyjoor bi ba ñu war a daje ci croisement ba ñu war a wàcc yoon wi ndax ñu réer ko bi ci des yàqu ñaari kon yu gannaaw yëpp toj ñu daal di sàcc daal di génn mu ñeent ñaar ñi daw nañ kenn ki daw na jëm féete tundoo di mu top ñett ñi ba kenn ki dugg ci kër chef de village bi ñaar mu topp leen ba mu dugal ci miir boo xam ne bii ab la yor fa ay nag mu jàpp leen dugal ci miir bo dugal ci néegam tëj leen bi ndam mi ñëwee ñëw nañu yéeg miir bi wër wër wër wër ndeke dañ ko tëj ci biir woo nañ gendarme bi gendarme yi ñëwee dañ ko door a booba nag bi ñu agsee ci loolu nag ñu daa yebal nag fas wi leen indi woon mu man jël si bi ma ñëwee fekk naa gendarme yi jël na fekk naa gendarme yi jël nañu sàcc si ak bëy bi desoon ci woto bi ba yóbbu ma waxtaan ak chef de village bi mu sëñ Touba Mbacke mi fi nee sëñ Abdou Khadir ci Baxdaad mu ne ma mën ngaa dem ci sa kilif sama yaakaar tey ëllëg wax ko mbir mi sëñ Cheikh wax ko mbir mi ba noppi na ma da ngay tëdd bu subaa nga dem brigade ne leen nangam la ñu ma fabal seen Talla na ma booy dem na nga jaar Baxdaad ànd ak Mor Mbeng kii tax ma ne gannaaw nag damay ànd ak Mor Mbeng fanaan fi ba njël jaar foofa dem sama kër naa jël fii taxi léegi fanaan sama kër booba guddi gi tegal na wax toog bi ma bi may jaari fekk naa ma dëpp bi nuy bët seetee ma ànd ak moom dem fa Tuuba mu woo ñi teewoon mbir mi borom taxi bi fekk ngeen ko fii ñëpp ñu dem beelal ban demee ku ci nekk laaj na nanga ko jàppee ak la nga ca def ak na ko gisee ñoom ñett ñëpp ba ci mor mi ba mu ñëwee ci man ma ne ko man de mbir mi ma ko moom ndax man samay gàtt lañ fab mu ne ñaata gàtt mu ma ne ko juróom-ñetti gàtt juróom-ñetti gàtt la te fi ko fabee ak fiñ leen jàppee mutul waxtu mutul waxtu fi mu fabee ak fi ko jàppee mutul waxtu solal nañ nu lool solal nañ lu lool lool lool lool lool nañ lu lool te a ah xam na moom ñi ma fa am na si ko moom xam na ni mu mel waaw waate bi ñu sàccee woon gàtt yi ma ngi nii fi kër sëñ Touba fi baax daat gaare ni fii may wax ak yéen ma ngi nii jàpp nañu ñaari ñu jëpp ñaari ñi ci des dem nañ ñaari ci dee dem naa ba fekk leen fa brigade bañ nu enquêté ba noppi ci kanam kii laa ne ko est ce que mën na ngoo wan gaay yi mu wan nu leen ñaari ña déedéet ah loolu de waruma ndax demuma fa ñoom te it fekkuma leen fii dañoo ne ci sama yooyu ah kay kenn ki dóor nañ ko fii ci loxo sama rak nee na sandarma baa ko dóor ah ma ngi nii sama loxo baa ngi nii ba fi mu ne reesagut ci loxo càmmoñ la ma dóor ma ngi moo ma dóor ma ngi nii eh, kër gi mu miir bi mu cëppeelu woon biñ ko fi tëjee pël bi tëj ko fi dem taseeg ma yi jox leen caabi ji ñu ñëw ubbi ko foofu ñu koy ubbi laa njëkkanteeg gendarme bi bunt bi mu dóor ma bi ma dóoree ma fayu man ku ma dóor bu ma daanu fayu maanaam jur yi moom dañu wut ci àllal ñu wut dañ ciy topp ba naaj bi tàng ñu wacc leen ñëw kero bi ñu leen di sàcc fii añ nañ ba pare ma bàyyi ma ñu bàyyi leen fële añ nañ ba pare ma bàyyi bëyee fële waaw fii ba ba ngay dem naay dem Mbàkke sàcc moonu tee nelaw guddi moonu te bërki kero bi ñu jëlee bëy guddi googu naay di lañ fanaan ñu téléphoné nu fii nu top seen tànk bañ ñu yegg godoro bële tànk ni waaw fii moom duñ tëdd guddi duñ tëdd bëccëg ndax sàcc kii mooy sëñ Demba Khary moo féete foofa euh, comme loolu ma dolli ci tuutit maanaam wàllum càcc ga lañ fa jël moom jéggi na dayoo maanaam dat yi bii nga xam ne ñoom moom lañ monté moom moom juróom-ñett la jël waaye lay jiitu loola luy tolloog deux mois ci gannaaw jëlaat nañ fa boo xam ne nii mi ngi nii kii mooy moo moo moom jur googu te weer yëpp rek weer yëpp rek dañuy jël di jëlaat di jël di doom la ci moom moom it jëlal nañ ko loo xam nii nii munta wax na mu toll waaw ñoom daal am nañ jafe-jafe daal am nañ jafe-jafe sécurité bu méttee méttee métti ja jafe-jafe sécurité moom lañ amoom wax dëgg yàlla bëgg nañ ko leen faraaw ndax it duñ nelaw guddi duñ nelaw bëccëg xam nga loolu mun ta bokk ci liggéey ah yow da ngay da ngay yendu bëgg a liggéey te bu guddee nii la ñuy wóofee gétt gi toog sinon loolu li nga yoon yóbbu ko waaw ñoom am nañ jafe-jafe boobu.